ngi fii ci euh, siège natal Sénégal fii ci Diouloulou ndax benn euh, gan noonu laa ko mën a waxee sëñ bi na def. maa tur bi ak sant bi. waaw ah, man maa ngi tudd Momar Talla Ndao. Momar lan mooy sa tànk fii ci Diouloulou tey. waaw man de dama fi ñëwoon tey ah, ci ndigalu honorable madame Waré Gane mooy présidente parti natal Sénégal aussi. nekk aussi membre ci conseil économique social bu environnemental donc dama ñëwoon tey ci ay ndigalam ñëw seet si waa Djolof. seet si dëgg naa fekk naa tamit ngeen di joxe ay kayitu ñu ne euh, ay financement nan la demee. waaw xam nga ñun ñëwoon nañ fi ñëwoon nañ fii Djolof ñëwoon nañu Djolof ànd ak euh, monsieur Ibrahima Diédhiou mm-hmm. moom mooy coordonnateur parti naatal fii ci Diouloulou donc ñëwoon nañ fi def waxtaan bu yaatu dajeeg population yi ñu waxtaan ak ñoom ñu wax ñu tamit seen i mbébét bi ñu waxee tamit seen i mbébét donc ñun tamit suñu xel jugewul ci lu ñuy def ba jàppale population yi donc ci la madame Waré Gana Seck waxee ni moom daal lu ñu mënti def nañ ko jéem pour jox leen ay financement mën a jàppale jigéen ñi parce que jigéen ku jàppale jigéen rek jàppale nga sa réew parce que réew mi jigéen ñi ñoo ko yor ñoom ñoo yore kër yi ñoo yore njaboot yi donc loolu moo ñu fi indi woon tey ñu demoon nag ak PAMECAS liggéey ak ñoom ba am fa une enveloppe de vingt boo xam ne dañ koy jox population wu département de Bignona donc tey loolu moo fi nekkoon suñu tànk suba bi ñuy avant ñuy egg fii njëkkee nañ foofu lijjanti nañ loolu mhm. ba loolu teg nañ ko ci si fi toll nii ci tey tey te tembe ñaata ngeen euh, joxe fii ci Diouloulou. tey tey. Ah. bi may xëy ñii ñëw. Mhm. quatre organisation ñoom ñoo pare woon pour ñu jox leen. Mhm. mais bi ma eggee PAMECAS dama def sama kéemtalaay kàttan ba ñu dolliwaat ci ñeleen ñaar parce que vingt organisation nañu mhm. fas yéene jox financement donc six yi dinañ jot yeneen du fukk ak ñeent dinañ jot ci weer bi ñu nekk rek ndax seen këyit nañu war a dajal suñu dajale seen i këyit ak yow seen xaalis incha allah dina leen fekk PAMECAS dinañ ko fekk incha allah euh. ci ci ci defar bi yëpp mhm. bëgg tamit ñoom liggéey bi gën a gaaw dañ leen ko oyofal même frais de yi nga xam ne ñoom dañ ko war a fay mhm. parce que banque bi su lay lebal su la joxee un million. Mhm. dina la jë dagg presque benn cent cinquante mille boo xam ne yenn ouverture de compte la yenn frais de dossier la mhm. yeneen ni épargne booy def yooyu yëpp mhm. pour gën a jàppale population jullit bi dañoo dañ koo fay ñun ñi ñi dafa benn somme boo xam ne frais bu mënti am rek ñun ñoo koy fay ñoom ñu mën a jot l'intégralité de leur financement. suñ toll nii boo nar a waxee ban kaddu nga war a wax askan bi nga xam ne ñoom ñoo bénéficié au financement boobu. li ma leen di wax rek mooy ñi gëm euh, parti naatal Sénégal ak présidentam ak aussi seen coordonnateur yi surtout ku mel ni Ibrahima Diédhiou ku mel ni Lamine Cissé ak ñeleen nañu parce que ñoom ñoo nekk ci zone Casamance bi donc nañuy gëm lu ñu leen wax nañ ko gëm parce que waxuñu waxu politique dañoo jug pour jàppale population yi te incha allah ci loolu la ñuy taxaw parce que naatal Sénégal nañu wax pour un Sénégal prospère kon nañ jàpp ci parti bi pour gën a parce que naatal du ñu seetaan seen membre yi di sonn ak keneen ku mënti doon duñu ko seetaan donc ñu gën a jàpp ci liggéey bi gën góor góorgóorlu parce que Sénégal ñi ñoo ko mën a defar dañoo war a jàppalante. financement bi ngeen di joxe nii nguur gi la wala nu mu demee. financement yi nag financement bi jógewul ci nguur financement bi ay fonds la ay sénégalais yuy liggéey ci réew mi di fi daan seen doole nekk ay père de famille ak ay mère de famille ñoom ñoo dajale seen doole. ci seen liggéey daal di koy def ci keesu naatal mu pour ñu mën di jàppale seeni membre financement bi jógewul ci état jógewul ci benn ministère jógewul ci benn kuréel goo xam ne état moo ko moom wala keneen ak keneen ay ay fonds propres la c'est des fonds propres c'est des fonds propres maa lay di la sant jërëjëf merci beaucoup